am mbégte teewaat fii ànd ak yéen euh, journaliste yi ci liggéey bu rëy bi nga xam ne def nañ ko fii ànd ak daayira bi fédération Matlaboul Fawzeyni Set Setal euh, defal ko président de la république ñu tuddee ko président de la république nga xam ne tey jii mbedd Touba yëpp sëkk nañ leen manqué nañ ndox yi euh, lépp def nañ ko def nañ ko ci turu président de la république donc ñu am mbégte rek di mbégte mu rëy moo xamante bi ci ànd gi ñu ànd ak bàcc di ba ak fédération Matlaboul Fawzeyni di ñett téeméeri daayira ak lu teg yoo xamante bi ñëpp dañoo boole seeni doole ngir fi seeni jàppale président fii ci Touba loolu di sama mbégte bu rëy rëy rëy ndax loolu dañ koy dañuy sukkandiku rek ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir yéene ji mu am ci président ci la daayira yi su président bu ñëwee mbooloo mépp teeru ko ci anam bu sell euh, dalal ko comme ni ko sëriñ bi waxee ak ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko noonu ànd ak moom accueillir ko fas yéene ànd ak moom dem ubbi ji bi nga xam ne def na ko muy hôpital boo xamante bi Euh, adduna bi yëpp man nañ ne euh, Touba la ko Serigne Touba la ko la ko la ko président Macky Sall jagleel Touba la ko Macky Sall Macky Sall jox euh, wàccuwaay woowu waa Touba war ko delloo njukkal ci action yooyu président def fii muy assainissement bi hôpital bi ak ak courant bi nga xam ne barki démb ñëw na fi yebal fi directeur général bi tey mu ñëw yokkaat alimentation Touba donc loolu di ay action yu am solo. Euh, day wane ne rek Touba euh, cër bi nga xam ne moom la Serigne Touba am président Macky sàll xam na ko te mi ngi delloo dëkk bi donc fas nañ yéene ànd ak mbooloo mi nga xam ne mooy fédération bi ak euh, ak mbooloo mi nga xam ne fédéré nañ ñëpp àndal na ko gisee jàppale président nekk ci ginnaawam suivre ay bëgg-bëggam continuer topp ci ginnaawam incha allah. di nuyu di siyaare nag Serigne Minikaar mi nga xam ne sëñ Saliou Sa Mbacke moo ko tuddee di ko sant bu baax ci taxawaay bi di ko gërëm di ko ñaanal. di sant sëñ Bàcci Diba gis nañ taxawaayam bu baax a baax ci dëkk bi ak ci mbooleem guy mbind di sant nag taalibe yi yëpp di sant soxna yi guy mbind ak soxna yi teew di leen xamal ne it nag taalibe daal moom jëf rek jëf rek mooy lépp taalibe moom ndigal rek ndigal nag saa bu jógee rek ma nga ànd ak njëriñ saa yi rek ak baatin soo jëfee ndigal rek eh, njëriñ yëpp dugg kon sëñ eh, mel ni kaar noo ngi lay sant bu baax noo ngi lay gërëm noo ngi ñaan suñu borom ba dool ñu taxaw saay rek baatin di ñaanat président Macky Sall gis nañ taxawaayam jis nañu jëfam waaye ñun nag amuñu du sëñ bi rek ku jàpp sëñ bi rek ñu jàpp la ku jàpp sëñ bi ñu jàpp la amuñu lu dul sëñ bi xool ñu dul sëñ bi yaakaar yooyu dul sëñ bi te gis nañ jëfam gis nañ taxawaayam kon ñu ngi ñaan suñu borom bool ñu taxaw saay rek baatin Eh, soxna yi ñu ngi leen di sant bu baax fépp fu ndigal jóge gis nañ ne kenn du leen ci man kon ñu ngi leen ñaan sama borom mi nga xam ne yow mooy saayir ak baatin yor def ak dindi yàlla nañu defaral suñu saayir defaral suñu baatin di sant tamit minicar mi nga xam ne nii moom moo fi ñëw fekk lu nëbbutu woon mu feeñal ko muy lan nit ñëpp war a xam ni Touba amul lu dul sëriñ bi Macky Sall jëfal sëriñ bi loo xam ne ni sëriñ bi santal ko boppam ba wax ni ñaanam sax moom mu dem ñaanal boppam moo ko ci doy kon loolu su amee minicar ñëw fii fekk ñi nga xam ne nii mbooloo yi nga xam ne dañoo leen nëbboon mbooloo yi nga xam ne ni maanaam kenn daawul àgg ci ñoom mu ñëw ci ñoom boole leen pour feeñal liggéey président Macky Sall loolu dafa am solo trop ba tax na tey jii mën naa ni Touba yëpp tey jii président amaat na leen ndax minicar def na lu liggéey boo xam ne nii. fédération bi tey gox bu nekk ci Touba rek bokk nga ci fédération bi ca ñooñu ñëpp tey ji yëg nañ ne président ndekete liggéeyam lépp ci Touba la ko def grâce à minicar bu Serigne Saliou kon nag tournée bi nga xam ne commencé nañ ko ñi ngi ñaan président mu xam ñi nga xam ne nii ñi ngi feeñal liggéeyam di xam ñi nga xam ne nii ngi koy boole parce que man musuma def déclaration musuma wax ci ci lu mel noonu te xoolal mbooloo mi ma jiite ah kon loolu su minicar ñëwee dundal ko wan ñu ne yéen lii ngeen di def hmm? président mi ngi ciy jàppale waaye nag àggul woon ci yéen xaareen ma àggale ko ci yéen muy lan génn ci ñaq boppam financé ay oto ay oto manq jënd ay suuf ñu jóobu ko ci mbedd yi ah te loolu fii rek lañ ko commencé mais tubaa yëpp lañ ñuy dajal kon nag loolu dafa am solo bu neexee yàlla teeru bi ñu war a teeru président dinañ ko teeru comme ni ñuy teeroo buur danañ ko lalal tapis rouge danañ Touba gépp danañ génn te it danañ ko jox loxo nag danga xam ne Touba jàpp na ko jàpp boo xam ne kenn musuñu koo jàpp loolu moom na rafet njort bu baax. beneen bi tamit moom mooy ñoo ngi préparé bale door lundi incha allah lundi boobu Touba gépp ñooy daje pour sant président xamal ko ni ko li nga ubbi ci hôpital bi gis nañ ko ak loolu loolu nag moo tax ñu ne dañuy bàyyi ba lundi ñu def bale door bi waaye daal ñu ngi sant bu baax.